Thank you.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 après da ngeen may topp si biir ah, ma war leen li ngeen xamante ne nee leen mooy xew li ci biir ah, dara du leen ëpp nag bu soobee yàlla sama gars yi ah, let's go su baaxee rek ñu daal di dem. ah waxoon naa leen ko nag nee naa leen tey li ci biir mooy xew ñu fekk fi nga xamante ni moo di DG Ndokh TV ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. maa ngi sama xarit. <laughs> dëkkal. exactement waaw mais yow da nga gis ci seen bi quoi bu defati loolu waaye. incha allah ndax xam naa ci yow laa jàngee présenté mais maa ngi lay. amatu na ngay nam quoi benn instant ah. yaa ngi étoile wala yaa ngi jëm activité. non maa ngi jëm activité. yaa ngi jëm activité ah. ah, en fait Pape Doudou man la fal li nga xamante ne moo di directrice bi. ah yaa ngi directrice bi. yaa ngi directrice bi.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 prestation bi ñu bañ koy commencé mën a ñëw ba moo tax bu ñu ma woowee lu ma mën di def dama parce que vraiment man ma sañoon ñun ay mag lañu quoi ñun commencé nañ presse locale mais dañu bëgg ci kanam tuuti dañuy génn bàyyi suñu yi ñu continuer ko te vraiment GP taxawaay bi mën na jàpp Ah, ñu gis ni yow euh, yaay borom GG Ndox TV ñu gis ni ngay jàppale jeunes yi ñu ngay jàppale li nga xamante ni moo siti Tiwaawan ni ndax mënoon ngaa ni damaa yor sama site damay toog ma dem mais defoo ko da ngaa bàyyi nga ñëw toog fii nii dalal li nga xamante ni moo sa ay doom euh, ku iñaane sa dono sa day nday ñaaw. Uh-huh. te nit lu mu mën di am ci àddina bu sañoon ay doomam la koy yéene. exactement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 di commencer genre liggéey bu mel nii damay kontaan parce que ci kanam tuuti dañuy am ay télévision il faut ñoo am ay reporters yu mel ni yéen nga xam ne bu ñu àggee ko ngeen mën di toog ci plateau yi di teewal ci waawoon quoi vraiment moo tax bëgg naa trop ci sa teewaay tey fii ñëw di may interroger. Francky.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 ba paree fi tournage bay ñibbi Louga ma woo ba ma ñëw mu nit ku baax ñëpp dañ koy waxtaanee xale yi surtout la bëggee mais leen dong julli kon del fexe di julli su laa a waxee ne ko yaay booy man a damay julli de barki maam Cheikh Rafal damay julli waaye damaa ñëw ba fii julliwuma ma bañ a ma bañ a genre avant may ñëw julliwuma su ma egsee fii su ma jullee rek kon damay mel ne naa fekk moo tax léegi nag bis na a tey dinaa julli ba faaw dootuma ko a après si laa duggee ci bis bi sangu sangu set toog julli ñaari a jéggalu suñu borom ba ba tey nag maa ngi fàkk ci julli gi maam Cheikh kóllëre dafa su ko neexoon day xam li nga xam je l'admire et je ah? ah, la trouve belle. Elle m'a dit comme elle me fait vivre elle est là elle est vivante waaw man moom wax dëgg yàlla maanaam man dama man fu ma bëgg dama koo bëgg ah maanaam man dama bëgg nit quoi boo xoolee ni may dundee sur internet nga xam ne kii dafa bëgg nit waaw te waa GP TV dañoo nekk gars yoo xam ne chaque fois dañ may woo di ma encouragé di ma bëggee et tout ana bi may ñëw bi tournage ñoom dañ maa dalal taxaw teeru ma te fay ma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 waaw moo comme comme euh, je pense que GP wane nañ yoon bi te budul GP tamit vraiment gis nañ ni a pas mal de jeunes yoo xam ne ñu ci dëkk bi ñu ngi ñu ngi ñu ngi entreprendre di jéem a créer quelque chose loolu nag duñ def loolu di ko encourager. di ñaan ñëpp euh, xool exemple ci ñoom di ñaan tamit autorités local yi nga xam te ne ñoo fi nekk di niveau communal ak départemental ñuy ñuy accompagner initiative yu mel nii di accompagner jeunes yi ci euh, ci projet yi ni entreprendre di di di jëm a créer emploi quand vraiment merci. mari mu jooy wala bu mu jooy.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 seen seen site yi ñu leen di fu kawe kawe kawe incha allahu rabbi maa leen si jàmm salaam daal. xam naa man dag may ñaanal parce que dañ maa fal li nga xamante ni moo di yow dara jaww mu la parce que da ngaa baax maa rek lépp loo xamante ni si mérite la yàlla yàlla nga si jot ak daal si kàttan yàlla. nee naa le drapeau du Sénégal. waaw ñu ngi lay fay Sista Amina maa lay man seen waa Étoile TV maa ngi leen baax a baax a baax di nuyu waa Tivaouane yëpp. Eh, bi nag nouvelle directrice laa de booy directrice. ah directrice maa ngi leen di nuyu. <laughs> ñu ngi ah, gis xum eh, tey lan moo doonoon eh, anniversaire waa GP TV Sénégal. waaw mu nekk relation bu fraternelle rek vraiment je pense que ni euh, GP euh, muy Paco di Galaye bon vraiment son des frères quoi son des frères vraiment bëgg xum yëg lépp lu xum wootee ñu nekkale ko ci ba mu ba mu jeex kon donc c'est très normal ñoom tamit bu ñu xewlee ñu tamit ñu def laa même chose quoi waaw ah, lii moom on a fait que apporter notre pierre à l'édifice quoi parce que suñu programme la suñu événement la te suñ suñ suñ si ñëwee tam war nañ ci ñëw. exactement tey jii gën nañoo gis xum sabo si li nga xamante moo di dëkk bi muy Tiwaawoon na lan ma waraloon loolu. waaw xam nga rek comme waa Tiwaawoon dañu yónni yaakamti ñu.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 si effectivement mooy comme ni ngeen ko gisee nee rek et je pense que ne léegi moo gënoon a yokkoo tax ñu tëj woon ci rukk liggéey muy benn album boo xam ni ñu ngi pare incha allah teg ko ci nopp fans yëpp ñu déglu ko am ci contentement vraiment ndax looy moo rek lii rek moo waraloon suñu absence depuis boobu ba léegi vraiment waaw mais album daal boo xam ni ñu koy préparé incha am na compte YouTube wala. am na YouTube am na Facebook am na Instagram am na sax.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 ak muy Paco ak euh, Galaye. Euh, ñoom ñu nekk seen i confrères boobu wéetoon nañ ci PNC TV Ndox TV tey yëpp ñëw nañu. nekk seen mag ñu accompagner leen. jàppale leen sotti ñu tey def seen anniversaire ak seen i internautes. ñu ñëw wan loo gis ci àdduna moom. daanaka daanaka petit l'oiseau fait ndànk ndànk moo jàpp golo ci ñaay te bi mooy seen énième édition da nga gis ne seen internet bi ñu ngi am benn complicité envers am am solo ñu nag dañuy ñëw rek encouragé leen wax ni seen mag li ngeen def neex na ñu ngi leen di jàppale yàlla yàlla may leen ndam dem ba Sibi nekk si bu ñu reconnu sur le plan international il est reconnu sax mais bu ñu gën a yaatu di wax ci état parce que moom ak Tivaouane TV nekk suñu ay doom nekk suñu ay fils nekk suñu ay yàlla defal leen jàmm abonné bu pour may leen leen doole ndax abonnement yooyu yooyu leen leen di gën a may a may correction affaire yi mën a baax incha allah a loolu ah, kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ñi nga xamante ni ñoo waral bis bi muy Paco Egalaay Awa ñaareel waaw noonu laa ko a waxee <laughs>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 naa ne ah, da ngaa kontaan. <laughs> waaw waaw waaw daanaka maa wax. kon su defee dañuy jox ki nga xamante ni moo di Bakho kàddu bi Bakho ñoo ngi lay nuyu bu baax bi.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 mais am liggéey. am nga liggéey. tif ak sama fa laa bëgg a dem. ah waa ñëwal ñëwal ñëwal incha allah merci beaucoup jaajëfal baax. Euh, yow nag yaay DG li nga xamante ni moo di euh, GP TV Sénégal lan fii nii. waaw euh, suñu taxawaay lan la rek mooy trois ans objectif tax ba GP TV Sénégal.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 voilà loolu moo tax ñu woote lii def ko feet nga xam ñëppay ñëw waaye tamit ñëpp a bon def foo ka foo agré. dégg euh, jot na la. pour di. jot na la su ma jot gën a xam ci Sénégal franchement. Ah, tey jii ñu gis sa taxawaay ci li nga xamante ni moo di GP bi nga ah. jàppee ba tey bàyyiwoo. xale yi tamit yore loolu ah, fan la li nga xamante moo di DG loolu ban jàngat nga ci mën a def. waaw loolu sant euh, ma. xale yi ay.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 xëj ma fenn ma leen di ñaanal luñ bëgg yàlla comme liggéey bi ñoom tamit liggéey liggéey bi am solo man buñ ma gis sur le terrain saa su nekk dalay pakoo lañu gis sur le terrain ak tey suñu wax ñu sant mooy di leen sant gërëm leen wax dëgg yàlla kontaan nañu baax a baax a baax franchement ñoo la gën a kontaan léegi lan ngay wax xale yi ñu gën a góorgóorlu ñu yokk jom waaw surtout loolu ndax soo soo seetloo chaque année rek dañuy waat beneen facette quoi dañuy waat lu bees xam ne comme liggéey mooy avancé chaque année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 suñu directrice. waay waay ak TV. kon nag li ñu leen souhaité mooy euh, boobaa a amul ragal. ah tey tey tey nga ànd ak maanaam. waaw waaw waaw wax dëgg ah, yàlla. Ah. sama xarit sama partenaire. sama sama lépp sama conseil. aw ah, ndeysaan en sama. Euh, dilam dilam. dilam dilam. Ah, ah dëgg yàlla loolu sax. Ah. macha allah c'est le fort. kon kon su ko defee xam naa day ñëw ci maanaam rek laaj ko kenn. maanaam da xam naa da nga koy jéggi rek. ah kooku la dëkk micro. li waroon a wax wax nga ko daal. waaw ñu accompagné ak sa boss. nekk artiste boo xam te ne faram. ñu waajal ba album bi nga xam ne mooy euh, ko melokaan yi. moo di génn comme le premier di si woo di si woo Actu TV di si woo FTV nga xam ne ñooy suñu incha allah ñu amal émission bu am solo comme ça boss eh. ak équipe bi yëpp incha allah su ma daanee yéen ñëpp di leen woo ngeen ñu taxaw ñu waxtaan ak ah. yéen wax dëgg yàlla nangu si si soo ba léegi ñoom depuis le ba léegi ñoom ñoo ànd ak ñun kon ñi amuñu seen fay ñu ne ñëpp benn lañu kontaan nañu bu baax a baax a baax. Eh, eh, incha kon ñoo ngi lay jaajëfal baax a baax a baax ah, di la di la wax yàgg yàlla na fa yàgg féete féete féete féete incha allah yàlla.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 site yi nekk si Tivaouane yëpp wuyu si nan li nga xamante ni moo di waa GPTV nee naa leen sama gars yi ca rek incha allah ah, ba déwén incha allah dina gën a neex ah, dina gën a yëngu ndax liñ fi gisee doy na ah, te ñuy jaajëfalaat bu baax a baax a baax ñi xamante ni ñoo di DG bu Étoile TV. di jaajëfal tamit euh, DG bu Tic Actu TV ak euh, bu euh, Ndox TV sama gars yi à ba déwén incha allah yeneen ak ak yeneen yeneen.